dama bëgg nga xam ni fell na ci sa deretu doom ñaar nag moo am ci àddina dëgg ak fen dëgg mooy njëkk te mooy mujj Fatima merde Krause cuur sa doom rek moom xam nga naan la ñu tiit naa ji man na bu ma ko waxatee ah. kooku juróom laa bëggul mu ci kër gi da ngay naan Krause suñu yaay kooku li ñuy ci dëgg dëkk bi nga taxaw naa sama yaay la eh, merde laa la wax mu mujj tey mu mujj tey mu dugg juróom ci kër gi ok parce que yow yow yaay takku ngóone yow pour man dinaa la seetaat primeur bu mel ni yow dragon bu mel ni yow nga ne yow da ngay takku ngóone yow. en tout cas nobu ma la bugguma la faalewuma la bëgg naa nga xam ko bu xaayee rek ñor na. bu ñoree nga lekk ko. naaj bu tàng bi nga topp ko naan da ngay dox ci sëyu jàmbur yi mais yow nit nga wala kanaara nga. xamal nañ ma ne bu yaru la. bu am teraanga. kon alhamdulilah. xel léegi sax daanaka dematul boo yooyu indi conteneur yi nag aas moom day dem rek renouvelé lay xool ba ci man mi ngay gis nii sax man transfert la ah, waaw transfert la waaw ngand laa saa doo dof saa li nga bëgg yaa ngi ci damaa bëgg nguune li nga jël teg ci sa bët bi laa bëgg nga teggi ko Me sa mí. Eh, ma yow foo gis robe de mariage. ba dimbali ma pas besoin de ton explication. toi ak eh, Ngone et eh, Fatima vous êtes tous des putes. yow yaay caga bu góor bi. su may wax ak yow wala may ay caga dama lay nokk ok. yow ma frappé. waaye ma lekk yow ma frappé bu mag. ah munoo wayaan seen baay bu mu xëy dëdd. ngay jël ay yéreem di ko sol. bëgg a jariñooy doomam. mënta nekk doomam nag taawu kër ga man ko yor ngóone di ko doxal lu kumbu léegi maa am xaalis sonuma, ah may jox ci xaalis di ma defal lu ma saf di ma toppatoo di ma may nelaw yenn sa ma dem mu jeex sama sikkim bi jàpp sama embrayage yi sama cylindre sama bultu fii <laughs> sama kakili kiki laaj yi bàyyiwuñu dara baa xam na ni yoonu ndaw du ba na fii nga teg sa tànk man yow rek laa xam yow rek laa xam yaay. yàlla jàmm.